bismil ilaahi yan moolaay bila mana maaleykum waa adduna bi ñu ngi leen di nuyooti ku ci nekk seen tuur ak si seen sant ba tey rek ñoo ngi fii ci Touba Mbacke dëkk bu sell bi génn guñu fii tubaarkaar la ndax nee naa leen suñu sañoon ak waa TVS dañ leen di won lépp loo xam ne lu baax la te nekk fii ci Touba rek dañ leen koy wan ah, ba tax na tey jii fii ñu dikk fan la ñu ngi naan ko vingt 28 ñu daal di ñëw ci seen àngal Angal fal Fallou Mbacke tubaarkaar la ñu daal di leen fay fas woon seen xeet yu baax yu nekk ci bikit bi liggéey bukit bi tubaarkaar la di ngeen xam ne wàccal nañ leen coono fi ngeen toog ngeen di toog rek su leen neexee sax naam commandé bu leen neexit ñëwal seen bopp ah xoolal dama ne lu ne fàng kenn du ko jeex dañuy ànd dugg ci bukit bi tey ngeen gis loo xam ne mosu leen koo gis fenn ndekete foo am na waaye liggéey am na <laughs> eh, bukit bii day tubaarkaar la dañuy liggéey kaay leen ngeen xool lu fi ne yaa في وصولي بلا قفول ليوت وصولي جميل داري حبلي جلاوة ما للاوة حبلي دراية لدى لداي لدى دالي بلا درالي بديالي بلا بكاري جنابي وسلمابي ñu yegsee seen bikki angal sëñ Fallou tubaarkaar la ngeen xam ne ku koy mën ak ku koy jéem du benn mi ngi nii tarkaar la boutique boo xam ne ñàkkul dara lépp loo xam ne soxla nga ko lu jëm ci bernde màggal rek soo dikkee da ko fiy fekk ndax xam nga dañ ne suñu nee màggalu Touba daal ne bernde ba tax na tarkaar la seen boutique angal sëñ Fallou dañoo ànd ak yéen pour jàppale leen ci màggal gi gunge leen ci màggal gi ba seen màggal gën a mën a neex ba màggal gi gën a daal di tubaarkaar la maasàllaa nit ñi daal di gën a mën a sant ba tax na nee naa leen lépp loo xam ne bépp produit boo xam ne bu la jaaxal la soxla nga ko te mënoo koo gis fenn xamal ni soo yegg si fii tubaarkalla macha allah ci bëggatu sëñ fàllu angal sëñ fàll bi da ko fiy fekk lépp la ñuy jaay lépp luy xeet baax baax baax dañ koy jaay ba tax na yéen ñëpp maa ngi leen di bakkaat di leen woo pour ngeen dikk fii ci boutique bi ndax ñàkk fee ñëw wóorul ñoo jaay yu baax yi ñu bon ñu daal di jox ñeneen ñu daal di jaay ba tax na yéen ñëpp maa ngi leen di oo ñi nga xam ne ay gan lañ la am nañ fi wàll ñi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi am nañ fi wàll ba tax na yéen ñëpp maa ngi leen di bàkk di leen oo man nag yàlla def na ni fépp fu ma dem dama fay am xarit damay daal di oo sama benn tubaarkaar la soxna su baax su ma fekk ci boutique bi xaritoog moom dama koy oo mu joxe numéro téléphone yi ba nga xam ne képp ku leen soxla rek du jar ngay sonn danga leen di oo ci numéro téléphone yi yegg sil soxna si soxna si na nga def. maa ngi fi Tata yaa ngi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi delloo ziar bu baax. Ah, tey ma daal di dikk fii ci seen bitik angle Serigne Fallou mbakke mu tedd mi tubaarkaar la. ma daal di fee yegg si may laajte point bii fii ma taxawee nii ndax nag gan laa te gan du yooyu béy ma bëggoon fii ma nekk nii ñuy toog di seetaan lan nga leen di wax fii nan nga leen koy tegtalee ba nga xam ne ku fi bëggoon a ñëw rek danga nga fee yegg si direct te doo laaj. waaw ñun ñu ngi fii ak angle sëñ Fallou. ku nekk uh, buntu kër sëñ Abdou Fatah. près de la moske sorewul dara ak jumaa ji. ku bëgg a ñëw. man nga ñu contacter si numéro yii nii. tubaarkaar la loolu tubaarkaar la adresse la dégg nga lu mu wax tubaarkaar la macha allah yaakaar naa ni fii kon kenn du ko laajte ñaari yoon te doo réer ma bëggoon nag numéro téléphone yi laa bëggoon nga jox ma ko mais bala ma laay laaj numéro téléphone yi tey ku soxla woon fenn oo la est-ce que bu leen oowee di ngeen ko mën a livrer sans mu bouger parce que dëkk bi dafa xat te lu màggal gi di gën a jub si muy gën di xat te nit ñi dañuy soxla seen toog seen kër yi commandé mu ñëw taf-taf. est-ce que tey loolu ku leen oo woon dina ko mën a am. Ah, loolu ku ñu woo dañ la koy defal euh, rapidement. Ah, am nañ ay livreur am nañ ay càq-càq am nañ yëpp ko defee sa commande ñu livrer ko. jeex na euh, kon ban numéro ngay jox gaay waaw ku ñu bëgg a jot mën nga ñu woo ci numéro yi 78 591 62 62 wala 77 925 43 soo wootee di nga jot personnel bu qualifié ñoo fa nekk. mën na liggéey et tout ah. waaw këñ tubaarkaar la numéro bu baax baa ngi noonu ba tax na képp koo xam ne bëgg ngaa ñëw seen boutique angal Serigne Fallou Mbacke rek tarkaar la da ngay daal di oote ci numéro yooyu soo ootee ci numéro yi rek tarkaar la da nga leen daal di jot ah ba tax na maa ngi bakkat waa adduna bi di oowaat ñëpp naan leen hee fii mooy bu baax bi ba tax na yéen ñëpp na ngeen ñëw fii may ñaanal kiliyaan yi ñu daal di yegg ci jàmm ak salaam ak képp koo xam ne yaa ngi dikk ci dëkk bu sell bii ñu naan ko ñëw pour màggal si yàlla yàlla nga màgg te yàlla nga yegg seeg jàmm sa dernier mot. waaw ñu ngi di sant bu baax kontaan nañ si teewaay bi ngeen fi teew. waaw am nañ ci ay contentement di kontaan ci personnel bu fi nekk personnel bu mën a liggéey ñoo fi nekk bu qualifié bu mën a maslaa aussi ñoo fi nekk soo leen ñëwee fii am nañ fi boutique am nañ fi charcuterie am nañ fast food yëpp ay poulet grillé soo ñëwee si épicerie bi am nañ charcuterie am nañ ay euh, feuille de tortilla. mais dama laa waxoon sax sa dernier moom mais xam naa ni damay duggaat ko toog sa kër bëgg commander commandé pour bañ faa nekkee togg ak yooyu lu mu commandé di ngeen ko ko mën a toggal ak lu qualité bi rëy rëy rëy di ngeen ko ko mën a couvrir. si kii boo bëgg commande boo bëgg soo ñëwee toggal ko miss wi soo amee xew et mën nañ la defar ay beignet ay nem dañuy defar ay feuille de tortilla ay crêpes. crêpe Nutella crêpe salé yëpp. waaw keñ wax amul caw amul tey nag lii laa leen indiloon euh, fii ci seen bukki tàngal Serigne Fallou Mbacké tubaarkaar la xam naa lii ma leen indil tey neex na ba ëpp tarkaar la nii rek laa nekkee ak yéen ci màggalu Touba yi xoolal lu baax rek man mii rek day maay ko koy